Donc moi, c'est Madiaou Diop. Je suis le coordonnateur de la GPS du département de Kiawan. Euh, tey nag dañu amoon benn ndaje fii doon fi dalal suñu ay gan suñu ay wëlëre euh, muy les membres donc euh, du bureau exécutif national de la JPS donc dirigé par notre honorable <laughs> maître Ngagne Demba Touré avec son équipe donc ñu leen di sant bu baax vraiment ci déplacement bi ñuy def également ci yite ju ñuy def ndax ku xam na ni jamono xat na mais malgré ça ils se sont sacrifiés ils ont sacrifié leur temps Donc, ils ont, ils sacrifié aussi leurs moyen euh, et venir ici à Tuawan, donc nous rendre visite pour xool voir nous, qui une situation pour waxtaan ak ñun également sur le projet passif. Donc, on a échangé pendant euh, plus de deux heures donc euh, d'horloge. Euh, euh, on a parlé également euh, de l'importance vraiment du militantisme. ban militant la passé forum ak ban taxawaay la ñu a am sur le sur le sur le sur le champ politique surtout On a parlé euh, éventuellement euh, euh, de l'actualité politique, politique. Donc voilà, c'était un peu ça. On a échangé. Vraiment, ñu leen ñuy remercier ñoom ñëpp ci seen taxawaay di wax ni je pense que ñun ñëpp tey xam nañu ni Sénégal fi mu toll képp koo xam ni yow militant Pastef nga wala nga nekk surtout un jeune am na taxawaay boo xam ne war ko am ndax kii tey suñu président Ousmane Sonko donte ñu ngi koy bundaxatal di ko teg ay coono yoo xamante ni ku nekk xam na ni euh, tegul ci yoon bi ci mujj rek mooy le le blocus bi ñuy def këram euh, juridiquement kenn mënu ko justifier euh, donc bu fekkee dañ nekk dans un état démocratique dans un état de droit lu ñuy def pour dafa war a tegu ci yoon mais lu ñuy def ñoom jàpp naa ne jaay doole la yëfu maatee la waaw xëy benn étape la mais bi ci ëpp solo mooy gis ngeen la candidature bi nga xamante ne ñoom nee nañu kat ñëpp danañ bokk tey même ñi nga xamante ne dañ leen géeñ dañ sàcc mën nañ bokk mais Ousmane moom daa euh, daa am problème benn Sénégalais te Sénégal boo xam na ñëpp dañ ko tooñ liñ koy topp du dëgg du yoon ñu ni kooku du bokk ci élection yi je pense que loolu noonu xëy na euh, essayé àgguñ liñ naan liñ naan lu nekk la waaye la ca war a am incha allah bi euh, ak la ca war a xew xamaguñ ko mais en tout cas ñun en tant que militant de Pastef suñu taxawaayu démb mooy suñu taxawaayu tey mooy le projet de Pastef dañ ko défendre au au sacrifice de nos de nos de nos projet de Pastef dañ ko défendre au coût au coût de nos de loolu daal laa xam ne bëgg naa ko jàllale euh, di sant vraiment nag la coordination de Tivaouane bi nga xamante ne tey moo ñu accueillir di sant également tous les militants di wax ni vraiment nañu yokk seen taxawaay ci parti bi di cotiser di massifier parti bi vraiment di dugg ci nit ñi di waxtaan ak ñoom xam nga di dialoguer vraiment taxe ñi seen carte ña ci ci ci préfecture yi ak ci ak ak ak sous préfecture yi ñu dem ak maire yi ñu dem récupérer ji ko te waajal élection 2024 xam ne incha allah rabbi Ousmane Sonko day bokk te il va rek il remporter ces élections là au premier tour. benn amul benn stratégie bu ñu préparé. parce que actuellement nii voilà ay dossiers judiciaires la ñu teg ci la ñu teg ci loxoom mais amu ci benn boo xamante ne dafa donc yëpp électif donc gis nañu loolu mënuñu ko ko tere bokk quoi. ñun dañu jàpp ni ay caaxaan la rek ndax euh, ñoom leen tax a dëgg jox dëgg dëgg dëgg mooy euh, mooy code yi nga xamante ni euh, moo modification code yi nga xamante ni moo concerné. article L29 bi ak L30 bi man mais pour camoufler pour wax ni pour maanaam les autres dañu indi benn article boo xamante ne leer nañ loolu moom même seen i député ñoom yëpp bokk APR bokk benn bokk yaakaar duñ ko voté ndax ren kaay ren ren na def donc ñoom dañu indi article boobu juste pour dox ci xelu mais leen tax a dëgg dëgg mooy article L29 bi bëgg a modifié pour ni ah Karim Wade dina bokkaat d' accord Khalifa dina loolu aussi defuñu ay ay ay ay ay ñaax na peut-être ay reetaan la ñuy def ndax li tax mu indi ay reetaan mooy ñoom dañ jàpp fu ñu toll rek war nañ jàpp nit te plus ñu jàpp buñ buñ bu xeex amee tey wala jàmmarloo am diggante population bi ak xëy na peut-être force de l'ordre yi ñoom ñooy xeex sax ñeen jàpp bokkuñu tey jii boo xoolee événement événement marché yi xam nga méttoon na trop yaakaar naa kat ñoom pare nañ ci ñu dem préparer deux ans ñëwaat bi ñëwaatee ba soulèvement populaire amaat fi di askan bi génn jàmmaar la waat amaat ci dëkk bi ñu yàq fi lu bëree bëri ñëpp yàppoon na ni affaire bi kat dañ koy tekki suuf xam nga ñaan jàmm dox jàmm Sénégal ñu nekk ci leneen mais nag comme dañu jàpp ni ñoom tant que rendiwuñu Ousmane Sonko wala tant que toroxaluñ toroxaluñ ko wala ñu àndal duñu am jàmm euh, dañuy nax seen bopp rek ndax Pastef moom mënoo ko rey ndax état d'esprit la loo xam ni dañ Sénégalais dañ dem ba adopté ko seen tête seen bopp ku nekk jàpp ne kat mbir mi lii la maa ni rek keroog euh, le conseil de casserole pourtant leader de Pastef Pastef yëpp a ngi prison Pastef ñëpp a ngi prison mais tey na gars yi génn ñu def concert de casserole a génn du ay jàpp Samba jàpp ma Demba ñun jàpp ne ñooñu ñu bu ñu leen jàppee wala Pastef tas wala nangam nangam loolu nax sa bopp la nax sa wees na loolu Pastef c'est le